asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Touba Info nuyu nañ leen jaar leen di amaat contentement di jàkkaarloo ak yéen tey nag di dimance le 8 septembre 2019 ah, ku gis fii ñu nekk nii xam ne waa Touba ca kanam ñoo woote ab jëmbat garab ci deux voies yi nga xam ne moo commencé Mbacke jëm Touba xam naa damay daal di ànd ak sama caméraman lépp loo xam ne si ni am na fi tey jii dinañ leen ko wan si seen site internet bu mag bi di Touba Info. lii boo gisee ma yëkkati ko nii. ëllëg Touba nii lay mel ci kaw lay jëm waaye du jëm ci suuf mu te liggéeyu borom Touba moom ndaw bu ci ne war nga cee yëngatu ndax lii moom borom Touba daf koo waxoon ci lu yàgg ci jamono bii ñëw dinañu toog a toog ba Touba mooy raw Màkka man sa yaay Awa Ndiaye maa wax ak yéen lii nag. Abdou Lahad Loum président association pour la protection de l'environnement de Touba. waaw li waral suñu taxawaay mooy Touba naatal Touba projet bi nga am si ne euh, waa Touba ca kanam ñoom ñoom ñoo ko fi def loolu murid yëpp la war jullit yëpp la war ca ñun comme lëggeel Serigne Touba moo ñu tax a jóg fépp foo xam ne gis nañ ni dañuy lëggeel Serigne Touba ñun laxasaayoo nañ pour ànd ak ñoom lëggee ko ba mu jeex yàlla dafa dogal nag ñun sax dañoo bokk ci biir Touba ci kanam gis seen liggéey rafetlu seen liggéey di ci woo jullit yëpp di ci woo murit yëpp fu murit mën a nekk ak jullit fu mu a nekk sa cër ngi ci fii ndax dëkk bi ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp du kenn moom moo ñu koy defaral association boobu nag pour la protection de l'environnement de Touba nag defe naa foo dem ci Touba liggéeyam boo demee di nga ko fa fekk ndax foo dem ci Touba am na fa ay membre li ñuy wax mooy bépp liggéey bu ñu gis ñu koy liggéey ca ca Touba tax rek incha allahu rabbi taxaw nañ pour liggéey ko amuñu ci taxaw ñu lay woo déedéet saa bu liggéey jógee rek ñun dañuy jóg pour pour pour liggéey ko. waaw li mu leen di woo mooy bu leen kenn nax Touba ñun ñoo ko moom maanaam sant yàlla rek bokk na ci juddu juddoo Touba waaye wala nga juddu doon ab murit loolu doy na sëkk kon yàlla pare na ci yow bu yàlla pare ci yow yow da ngaa war a pare ci sa bopp pare ci sa bopp mooy lépp loo xam si ne Serigne koy sant islam diine diine na ko. Euh, ñëpp di ko lu soo ko gisee nga liggéey ca bàyyi yeneen yi parce que ñun ñooy mën a liggéeyal suñu bopp ñun ñoo mën a taxaw ci dëkk bi suñu bopp kenn duñu ko defaral comme kenn duñu ko defaral murit fu mu taxaw di ndamoo sëñ Tuubaa kon war nañoo war nañoo góorgóorlu ba sëñ Tuubaa it fu taxaw di ndamoo ay taalibe ah, projet Naatal Touba yaakaar naa ne am na solo parce que euh, sëñ Sall lu mu bëggoon la d'ailleurs mas nañ ko fi jëmbat amuloon suivi mais cette fois ci yaakaar naa ne ak ni ñu ko protégé dana dana dana am euh, suivi bu passé loolu nag muy mbir la moo xamante ne bii dafay euh, joué ci alam bi maanaam nature bi garab moom kenn ku ne xam na solo mi am ci nature wax na ne ku baax ki sax fu masaan nekk dana fa def lu mel ne bere ba buy jàpp mu fay law muy naata naat kon loolu tekk na ne euh, jëmbat ga lu am solo la bon euh, Touba ca kanam nag dañoo joxe yoon wi waaye lii kenn ku ne la war gox bu ne war nañu pexe ba fañ dëkk jëmbat fa ay garab bu ko defee mu am njëriñ et eh, que Touba am un poumon boo xamante ni bii dana dellu si waat ci koy nooy nooy gu set bu baax bu am njëriñ. sa moromu père wax leen ñu génn jàpp ci eh, Touba si kanam. waaw xam nga lii daanaka amul encouragement parce que mbir la moo xamante ni bii bu doon giiroo tey kenn ko ne naan demal demal nga giiroo ji ak ñàkk fu la boo gisee ñi giiroo demal nga giiroo ji Touba ca kanam jeexal nay wax. ma nga ca kanam ku niwul ca kanam ca gannaaw nekk te je crois kenn kenn bëggul des ci ginnaaw. kon kenn ku ne war nga fexe ba eh, Touba ci kanam nga jàpp ci bu dee sa doole nga def ci doole bu dee sa wàllu koom-koom nga def sa koom-koom bu dee sa wàllu xalaat nga def ko ci waaw aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi santaat Serigne Touba mi suñu yaakaar yi tey di suñu yaakaar yi ëllëg di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te wér Serigne Cheikh Jëmb Fall ak sonu maam Issa Mbacke bu baax Euh, yéen ñi nga xamante si ni yéen a teew di jël li nga xamante ni mooy liggéey Sëñ tubaab bi macha allah laaj bi am na solo lool nan lañ gisee liggéey Touba ca kanam ci projet bi nga xam ne si nii dañuy amal ay ay ay garab muy naataange naatal Touba muy lu am solo macha allah ñu ñëw ci nag sunu maam Issa Mbacke yebal ñu ñu ñëw di xitma si ngir mbokki taalibe yi nga xam ne si ñu ngi samp garab bi wala di amal liggéeyal Sëriñ Touba bi ñu leen di jox kafek Sëriñ Touba bi nga xamante si ni bi Sëriñ Touba jógee ci tukki bi moom la indaale sërica sa sonna si gaawan jox ko sunu maam Issa Mbacke mu ciy liggéeyal Sëriñ Touba bépp mbooloo moo xam ne Sëriñ Touba teewoon maanaam dogal na ñu teew fa rek ñu indi fa kafe di ko fa séddale macha allah waaw waa Touba ca kanam moom maanaam bépp taalibe da cee war a bokk ndax Touba kanam daa nekk loo xamante ne nii daa généraliser ñëpp mag ñeeg xale ndaw ñi surtout jeunes yi nañ bàyyi xel ci projet yi nga xamante ne waa Touba ca ñu ngi koy teg dañ ay jàmbaar yoo xam ne si sëriñ bee leen liggéeyloo seen liggéey rafet na ndax lu ne rek ñu nga ca biir yal na leen sëriñ Touba defal tawféex defal leen gëneel bi barakati Cheikh Ibrahima Fall Lamp. ngeen mhm. wax population waaw projet bi moom euh, mel na ni euh, ginnaaw bu sëñ Mountakha amee yaakaar ci kuréel gi di Touba kanam ci lépp luy jëmee Touba ca kanam ku ne xam na ne Touba euh, dëkk bu manqué garab la te ku ne xam na ne tamit garab li muy def ci askan wi ak li muy def ci environnement bi looloo tax Touba ca kanam seeni projet ñu bëgg cee boole nag njëmbatam garab ci dëkk bu sell bi di Touba euh, dana naatal dëkk bi dana jur tamit wér-gu-yaram ci ñi nga xamante ne bi euh, garab maanaam da leen di jox am lu mu leen di jox seen wàllu wér-gu-yaram looloo tax Touba Touba ca kanam ci ndigalal sëñ Mountakha ànd ak euh, membre Touba ca kanam yi ak association yi ak daayira yi ak ñi képp koo xamante ne bii liggéey sëñ tuubaa ñor na la jëme Touba ca kanam ñor na la ñu ànd nag ngir fépp fu garab war nekk ci Touba ñu ñu jëmbat ko fa. nga xam euh, mhm. waaw xam nga tàmbali dañ ne tàmbali yomb na waaye àggale moo jafe nañ xam ne lii Touba ca kanam def ab tàmbali la muy jëmbat garab. ànd kook euh, waa eaux et ak kilifa yëpp waaye nag lay tax ñu man koo jariñoo dañ koy saytu mu am entretien entretien bi nag ñun danañ def waa Touba kanam li ñu war a def lépp waaye askan wi tamit nañ xam ne lii seen yëf la bañ bañ koo yàq fépp foo xamante ne bii baare nañ ko nañ xam ne fii waruñu fee jaar nañ teggi jaar ci yoon wi képp ku yor ak jur tamit nga xam ne lii ñuy liggéeyal Sëñ Touba ci wàllu gàncax gi jur gu ko lekk tamit dana gàllankoor suñu liggéey kon daal xam ne ñun ñi li ñuy def ñun ñëpp ko bokk képp koo xam ne jàpp nga ne bu defaroo yow la bu yàqoo boo ko yàqee tamit askan wi yëpp nga yàqal yaakaar naa da nga ci def matuwaay yu mat sëkk sëkk ci luy jëmee Touba ci kanam wala luy jëmee gàncax gi nga xamante ne bi sëñ Muntaxa da ci am yaakaar ndax moom moo ñëw commencé liggéey bi liñ fi njëkk a jàmbat jëmbat sëñ Muntaxa moo ko jëmbat kon xam na njariñal garab